abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba aoudu billahi min alsheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil bokk yàlla ñu ngi dellu si waat téere bi di misbaahu ñëw ci biir téere bi ci bunt bi ñuy wax raddatu raddatu mooy murtad murtad mooy génn ci lislaam loolu nag borom xam-xam yi ñu ngi ko xamee ci jullit bu ne moom weddi na yàlla waaye ci biir jëfam mun nañ ko cee xame lu mel ne muy jege ay baar di jege ay yéeféer di xaritoog ñoom di lëkkaloog ñoom wala di dem di dugg ci biir église wala ci biir kàddoom mu nekk kàddu gu leer buy wane ni man kat génne naa ci lislaam loolu nag ñu ngi ko xamee mu ngi kàddu googu day jóge ci jullit jullit boo xam ne dafa ràññi borom xel la magam jëmm la eh, ba pare moom tamit moom moo tànn waaw moom moo tànn maanaam kenn forcé wu ko xam nga yàlla waxoon illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imaani kii kenn forcé ko moom moo tànn bëgg a nekk murtat bëgg a génn ci lislaam lu mel ni mu takk ci ndiggam eh, zunaar zunaar mooy am na chrétien am na ceinture yu mag yu ñuy takk mu dem takk ko wane ne moom dafa léegi dafa murtat wala mu jàpp alquran bi sànni ko ci biir foos wala ci biir duus wala fu salte foo xam ne ne xol yi xel yi dañuy dañuy dañuy seexlu foofu ci wàllu jikko wala mu tufli ci kaw téere yàlla bi même donte tuflit yu set la mais loolu luy wane ne dafa murtat la wala moom si boppam mu muy caaxaane ne moom dafiy des xam nga yàlla rek moo fi des waaye moom mu ne moom même bu àdduna bi jeexee moom dafiy des ba faw loolu yëpp ci wàllu murtat la wala mu ne moom toujours dafay dem di fóonanteeg euh, soxna yi uurul ay yi nekk biir aljana lépp ci murtat la bokk wala moom moom moo bëgg a daganal lu araam wala mu araamal lu dagan yii yëpp ci murtat la bokk wala mu woote woone moom kat bés bu nekk day yéeg kaw asamaan di wàccaat di ñëw yëpp ci murtat la bokk wala mu woote woone moom yonent la murtat la wala mu woote woon kat moom mun naa faagu mun naa liggéey ba am ab yonent nekk yonent daal misaal wala mu ne moom associé na ci yonent yëpp bokk na ak yonent yàlla Adama Nuux ak Moussa ak Ibrahima ak Muhammad ku ne moom ci biir yonent kooku moom am na ci cër am na ci wàllu daal mu nga nee na kooku nag moo li mu wax sax moo gën a garaaw ci wàllu murtat sax nee na kooku moom réyalal bakkaaram ndax li mu wax dafa garaaw nee na kooku nag su tuubee dañ ko tuubloo ñetti fan bu tuubee. baax na bu tuubul lañ koy rey alalam ñu dugal ko ci baytul maal jullit ñi ñu koy jëfandikoo lépp lu mu dénkaane woon listam yàq na ko lépp lu mu euh, lu mu ziha euh, lépp lu mu setoon maanaam li mu li mu doon jàpp ak lu mu doon def yëpp listam yàq na ko julleem kooram ajam azagaam yëpp listam yàq na ko bés boobu moom dafa murtat moo tax ay nizaram ay nuróoleem giiñam ci yàlla goreelam ak euh, nekkam koo xamante ne dafa sangewu lii yëpp yàqu na ci bés boobu naka noonu koo xam ne euh, dafa nee na nag rey zindiq zindiq mooy naafeq naafeq sey kon bu doon billa wala dëkk bi dañ fa rey ñu bari zindig moo xam ne mooy koo xam ne li muy wax ci làmmiñam du loolu moo nekk ci biir xolam mooy zindig nee na rey kooku moom lu war la donte tuub na aaw dañ ko war a rey billaay wallaay kon ne fii Sénégal buñ doon doxal loolu ñu bëri lañu rey fii du caaxaan naka noonu dañuy rey it euh, koo xamante ne ki njibarkat la boo xam ne dafa njibar nit ba mu dof wala mu ñàkk bakkanam wala mu ñàkk jàkk tàggu jëkkëram wala tàggu jabaram kooku dañu koy rey ak képp ku euh, euh, koo xam ne dafa xas yonant bi wala waliyu yàlla yi wala borom borom xam-xam yi wala sëriñ yi billaay wallaay yi bu doon moo doon daw fii ñu bari dañ leen di rey du noonu du caaxaan mu nga kon bismillah téere bi waa euh, atte boobu moom mooy loolu lañ ko tënkee moo tax mu ne wa arrafu raddatu kufri muslim ñoom borom xam-xam yi xamee nañu euh, murtat mooy kéeféeruk jullit mooy weddik jullit bi dem ni fiilin ci biir jëfam léeg-léeg da ko dañ ko da koy wone maanaam muy dem ci fréquenté ci biir jàngu yi ak yooyu aw bi xawlin mu fahami wala kàddu gu leer buy wane ne moom dafa murtat fekk nag mu ngi jóge mi muslimin ci jullit mu mayisin boo xam ne ràññee na borom xel la te magam jëmm la muxtaari koo xam ne moom moo tànn bëgg a nekk euh, yéeféer ka shiddihi lu mel ni mu takk fii wasdihi ci ndiggam zunnaar seentiru chrétien yi le aw ram yi ka kal quraani mu jël sànni lu mel ni alxuraan fii mu xazari ci biir foos wala ci ay salte euh, yoo xamante ne bi tabaan euh, ci wàllu jikku ñàpp dañ koy séexlu loolu day wane ne jikku moom dafa murtat walaw misli mu xaati daahiri doonte lu mel ni euh, ay tuflit wala ay yàbbit yu set sax ci nit loolu la yàbbi ci kaw téere bi ba tey dañ koy jàppee ne dafa murtad aw zaamihi fil aalamiina baqa wala moom muy caaxaane mu ne euh, muy wax ne moom dafay des ci àdduna bi le aw zaamihi wala euh, caaxaanam muy caaxaan rek naan al baqa fil aalami dina des ci àdduna bi moom doo fi jóge mukk aw annahu yuaaniqul xawra wala moom mu ne moom day dem di euh, foonante wala di tegante ay mbagg wala ay baat ak soxnay uurul ay nii bés bu nekk aw mu muharraman wala mu araamal muy daganal lu araam aw xaraaman xalaal wala mu araamal lu dagan awe iddaa suuda li sama wala muy woote woon bés bu nekk day yéeg ci kaw asmaan di ñëwaat aw bu nubuwata wala mu woote woon moom kat yonant la aw kasbaha wala mu ne moom mun naa liggéey fàggu ba am nekk yonant xam nga ab yonent yàllaa koy joxe yàlla mooy yónni ku mu ne waaye man mu ne moom mun naa fàggu ba nekk yonent ci xam nga ne loolu moom yebaate yi warawul loolu aw shirkatin fiiha wala mu ne moom associé na ak yonent yi fi jaaroon yëpp ku ne am na ci yow ci sa sa wàllu yonent am na ci wàll surtout yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kii dee fa azim zanbaha na nga màggal bàkkaaram sax ci wax ju bon jooju mu wax dafa murtad in lam yatub su fekkee ne tuubul moomu baada salaasatin gannaaw ñetti fan yuqalu yuqtalu dañ koy rey wa maaluhu fayun alalam dañ koy neenal dugal ko ci ah, kenn du ko doonnu dañ koy dugal ci baytul maal bi wa minha ah, wa yabtulu minha yàqal ci moom it wasiyatun bépp wasiya maanaam dénkaan bi mu defoon dañ koy yàq ci wàllu lislaam wa duhru setam laabam yëpp dañ koy yàq wa salaatu julleem wa sawmu kooram wal haju ajam kaza zakaatu naka noon azagam yëpp sariya yàq na ko ndax dafa murtad dootu ci am dara daal maanaam yàlla du ko ci fay dara wa nazru wa zihaar euh, gàttalam gàtt gàttalu yi mu doon def ay euh, kooru gàtt gàttañlu wala jaamu yàlla ay gàttañlu maanaam nëzër nëzëram yëpp yàq nañ ko wa zihaar ak nurolem bi mu nurole woon euh, yaayam ak jabaram yëpp yàq nañ ko wala aymaanu billah ak giiñam yi muy giñ ci yàlla yëpp yàq nañ ko wala itqu ak goreelam yi mu doon goreel yëpp yàq nañ ko wa kaza ihsaanu naka noonu bu fekkoon dafa sangewu yàqu na bés boobu mu ngoog wa qatlu zindiqin in taaba aw jibi nee na rey ki ñuy wax zindiq zindiq mooy naafeq koo xam ne li muy wax ci làmmiñam du lool moo nekk ci biir xolam nee na kooku rey ko aw jibi waral ko wa in taaba doonte dafa tuub suñ ko jekkoo balaa muy tuub dañ koy rey waaw ka saahiri naka noonu njibarkat dañ koo war a rey aydan noonu rek la ay aydan encore wa man sabba nabi ak koo xam ne Euh, xas yonent bi sallallahu alayhi wa kooku tamit wa ala kulli dañ koy rey ba musiba dal ko mu ngoog wala di xas yonent yeeg wala di xas borom xam-xam yi wala di xas ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit yi wala di xas ñu baax ñi ñoo ñëpp lañ leen rey ah, waaw mu ngoog kon buñ doon rey de dinañ rey ñu bari yal na yàlla defal ñu jàmm tabaarakàlla toog di xas borom sëriñ yeeg boroom xam-xam yi rek ñi ñëpp lañ leen waroon a rey mu ngoog kon yal na yàlla may dégg ak topp suba am ñu ñëw ci baabu zina muy wàllu njaaloo yal nañ ci yàlla musal musal ci mboolam jullit musal sunu suñu njaboot asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu